fàtte ce jour anniversaire warul tax nga mer ma jours wala léegi xam luy def jàmm ama ah. léegi nak moy wax lo bëgg rek lo bëgg. waaw loo bëgg ma defal lako cadeau anniversaire. man bëgguma cadeau anniversaire de bëgguma benn cadeau anniversaire code bi nga def sa téléphone bi la bëgg nga dindi ko té sama téléphone a ngi nii amul code té yow sa téléphone dafa am code. c'est te te te est-ce que solato leneen quoi lu bokk la code téléphone bi quoi parce que tamit sama code téléphone bi mom ah comme que loolu mënul nekk léegi demal sa alla ba nga fekk fa gayne gu mak yanul mako indil mako fi te li mom wax deug yalla problème la xaar ma xalat li mom cin bi baax quoi am ruq bi sedd quoi yonu jam nag sorul quoi na jeud rek mo gëna wor quoi legui gayne bu gor nga bëgg wala gayne bu jigen ban nga si bëgg ma indil lako ah, kon yow code dindi sa code bi dem wuti gayne mo la ko gëna kon sa téléphone bi la si nek reyna de mais séeri du loolu sax xam nga rek loo bëgg rek yow kay gaynde nga bëgg bàyyi léegi ma naa la jëm lijjantil gaynde dina métti nag dina métti xam nga te risque bu mag la mais moo gën a kii quoi moo ma gënal quoi man mu def naa sama